juróom fukki ak juróom benn. cinquante six ans cinquante six ans. Ah. xale de. dëj la demoon. jaale ji ca Saint-Louis. ak ca raw. raw ci raw yoonu ndar. raw. ba muy ñibbi si mhm. jëkkër ji jaar jaar na Kébémer ba escale fa. waaw dëkku Simeer la demoon jaale ji. bi mhm. ñëw. Mhm. escale na dëkku. Bousso Ndiaye ak Manel Kébé ak Ablaye Wade mooy Kébémer. Kébémer déggoo ma de waaw. waaye ba nii ñuy wax moom sëñ bi gaydel loo kenn tegu ko bët. gaydel loo la tudd. gaydel loo ñëwul ba tey. Ah bon bàyyi fi njaboot ak jabar. gaala ji woon rek. te dara jotu ko. déedéet fu mu woo ñu ne kooku départ na. daa yowoon otoom. daa ah. ah, duggoon ci oto yi. ah déet daa duggoon ci loolu tamit nag. loolu tamit nag loolu tamit tamit tamit loolu mooy lan. ah ah man de tey laaj doom bi ci yàlla subhaanahu wa taala ma kom jëm boom kër mani ah! doy na waar doy na waar ah, loolu ah loolu nag loolu nag loolu affaire la de loolu loolu tamit loolu doyul waar ah loolu affaire la na soxna si wax xool nu mu réere na soxna si wax ñu xool nu mu réere ah dëgg yàlla waaw naa nag man de ba ma ko déggee damaa tiit. noonu noonu noonu ba léegi ah, noonu. ba ah. tey. woowuñu ko téléphone. ma ni ëpp na semaine. ëpp na semaine. waa yow. ah. jabar ma wax de. <laughs> jabar ji moom dafa bien placé pour wax. ah waaw ah moom mm-hmm. moom doo nga mën a wax. Ah. gisul mu seen kër ji gay delloo. moom doo nga mën a wax kay. léegi su ma ana jabar ji. maa ngi seet seet sama borom kër. bu réer. mi ngi tudd Gaynde Lo. sa borom moo réer. waaw moo réer nu mu ngi dafa voyagé woon parce que dafa amoon. ñaari décès yu mu waroon dem. léegi mu mu jaale ba pare di wàññeeku. fan benn bi ndar la benn bi raw. raw ak ndar waaw mais bu ci nekk dem na ba ñu yegg foofu. Mhm. ñu jëlal ko oto ko oto Dakar bis. mu war a jóge ndar directement ñëw caaro yi. Mhm. mardi bi noonu ci guddi. sama doomu nijaay woo ma ni ma ndax ñëw na ma ni ko ñëwul mu ne ma pourtant moom départ na fi ci fajar waroon na ko fekk mu yegsi fu mu nekk ma ne ko ah yegseegule mu ne ma kon xëy na dafa guddee baal ba suba mercredi bi mu xayaat woo ma ni ma ñëw na ma ni ko ñëwul léegi mu ne xaaral mu daal di woote benn euh, rakku papaam keemeer ñu ne ko ñëwoon na fi de mais ay 4 heures yooyu la fi départ ni mi ngi ñibbi. donc moom bi muy ñëw dafa euh, bi mu ñëwee ba Kébémer dafa wàcc jaar feneen. waaw dafa waaw foofu la après nee nañ ay 4 heures yooyu génn na dem ni mi ngi ñibbi. waaw ci mercredi bi. mais boobu ba léegi gisuñu ko. boobu ba tey nii. boobu ba tey gisuñu te amuñu ci benn coordonnée. parce que fu mu xam rek woo naa ñu ne ñoom gisuñu ko. lan la dafa am problème mu bopp dafa waaw moom du mag boobu sax mais yenn saa day day perdre mémoire parce que day naax du boobu mag mais. day dem ba mu yàgg daal yenn saa yi day naax du xam fu mu euh, waaw voilà man loolu laa teg affaire bi comme léegi. moom mën na déparé Kébémer muy ñëw di yëg ak wàcc comme oto yi dañ la yàqale parce que foofu bu ngoon jotee du neex a ñëw comme Dakar. léegi nag xam naa loolu moo ko gëlëmloo mu daal di réer. nga ne moom nan la tudd. Gaydel Lo. Gaydel Lo. waaw Gaydel Lo. waaw. moom boo ko gisee nan la mel. moom photo ma nii. Mhm. mais wax ko ko nii dafa jeex tuuti. Mhm. mi ngi soloon benn xaftaan bu bleu. yor benn saak. saak yu ndaw yooyu. gàccoo ko nii. def ci beneen yére. beneen yére bi yére bu mauve la ko bu ko sumee daal. ak ay dàll yu bleu. bleu marine. la mooy. Ah. moom comme daal bi mu réer ak léegi bi mu demee léegi ñaata ngoon lay commencé na yàgg tuuti. mardi la fa déparé ba léegi. tey mooy ñetti fan. waaw mooy ñetti fan waaw mooy ñetti fan. mooy ñetti fan. ngay dundee loolu. ah doy waar. doy waar. doy waar ah jaaxle. Mhm. jaaxle rek ku nekk xam na yow xale sax boo ko yoree mu réer di jaaxle. saa kan ma laa magum jëm. da ngay jaaxle voilà da ok léegi yow woote nga sa mbokk yi mais tamit est-ce nga def ay déclaration c'est pas ay dem police def déclaration. non police demaguma fa nag fii laa jëkkee parce que dama génn rek ne naa jubal si fii xool ba xam ba pare après bu ma wàññeeku ma dem police déclaré. Hmm. mais daal fi ko fi ko mujjee gis mooy Kébémer. waaw Kébémer jóge na Saint-Louis ba Kébémer wàcc jaar kër Wow, ba si ay Caesar, Wow. waaw Wow, Wow. Singone. waaw. mu jógewaat foofu dem bi ñuy jëm si Dakar. Wow. boobu nag kenn xamul. fan la jàdd. diggante Kébémer ba Dakar Wow, mën naa wàcc fu Wow, waaw mën na wàcc fu ne parce que mën na guddee comme oto yi dañ la yeqale te Kébémer bu la fa boo départul suba gi ngoon gi ni boo fa déparé da ngay am problème noo wàññeeku te comme moom yenn saa day gëlëm mën nañ ko wàcce di ko yeqale di ko yeqale di ko yeqale mu jëlaat beneen oto laa dafay réer loo xamante fu mu jëm parfois même bu naaxaan boo ko laajee turam dina ko wax waaw buñ ko laajee turam dina ko wax buñ ko laajee mais moom bu demee ba sonn day mel ne ku fat su ko defee dootu mën a tee waxati normal su demee ba sonn nii ba sonnee bu doxee ba sonn wala mu def dara ba sonn day dem ba fat dootu mën a tee wax mais moom problème mu naa ko euh, yàgg na non yàggul yàggul ci moom de ay deux ans yooyu rek lay door mais bu daan boo boo leen daan nekk mu naax naka ci biir kër gi moom du naax ci biir kër gi du naax ci biir kër gi xanaa daal dina naqari deret daal loo ko wax lu tuuti rek mu gis boppam indi histoire commencé fat xuloog yow ba dootu mën a tee wax mais moom daal comme léegi su génnee tuuti rek yenn yi parce que temps yële passé mois yële passé doon na dem mari sam benn kër frère mu bu muy dem ma ni ko dangay dugg 65 bi soo demee barom pay nga wàcc moom comme légui boudé dee côté yarax mu jaaré ko yarax dina xam mais bu ko waré jaaré maris comme mu war ko jaaré rompoint bi du xam léegi nag côté yoyu itam mu gëlem fa daal di réer bi mu réré mu fanan ba xey suba mais bi mu xeyé suba xamna fi mu jëm bi mu xeyé suba dama tout sama kër frère bobu dafa wàññeeku ñibbisi wàññeeku ñibbisi waaw waaw dafa wàññeeku ñibbisi mais mu yorul téléphone yor na téléphone mais téléphone am bi ñu wootee téléphone bi da ko da ko fee bàyyi ndeke da koo bàyyi ci kër gi parce que jël naa sama téléphone ñu woote. muy sonné ci biir néeg bi. waaw mais yow xam na sa numéro. kan moom. moom kër wul sama numéro xamul sama numéro. amul kenn numéro mais xam na numéro sœur. sœur mi ngi hmm. xam na numéro. xam na numéro. bu demee ba gindi ko mën na xelam mën na dem ci mu woo sœur. waaw. donc fi nekk nii moom rek moom moo leen mën a contacter kon yéen mënoo leen ko contacter. mënuñu ko contacter loolu moom mooy problème. parce que su fekkoon ne mën nañ ko contacter dinañ ko contacter xam fu mu nekk ñu dem jëli ko mais mënuñu ko loolu moom moo nekk problème bi. léegi loolu euh, ah, ah. mi ngi tudd Gaydel Lo dafa sew tuuti. bi muy génn kër ga mi ngi soloon benn basin bu bleu. sol daal yi bleu bi sol mbaxana bu bleu tamit. mi ngi yor benn saak bu saak armé bu marron. saak comme saak góor yi yu marron. wékkoo ko mi ci defoon tamit benn xaftaan bu bu mauve. la. ah mag la du mag parce que fi nekk nii war naa am juróom fukki at ak juróom benn. 56 ans. waaw ah, 56 war na ko benn doom. anam. sa kër ga. naka la dundee ah, xale la. kooku xale la.